maa moomoon ah, ah, wayaan gi ni wayaan di ko def du ñoo ko moom demaru Baara Ngoon lañu bu subaa ñu tam naa benn répétition ah transport bi transport géwél yi transport bi transport bi wala wala di jox jox jox ma fi transport jox leen la ñu ba ba suba ñu ñëwaat 1500 ay géwél lañ nga doon jun bu leen bu leen met dara début la rek xaaral ma ñu doxal jun dugg ci biir doxal jun mo kontaan nañ mo kontaan naa ci kontaan nañ yàlla jàmm yàgg yow mi li nga def ci kama ah baax na. ah Mbour. da ngeen jëf. yow da ngay gudd fan. incha allah sagal bu may sagal. bu ragal dara. baral waay baral waay baral waay. na ngaa waay. dañoo am takku sax muy dëgg. jërëjëf Mbour jërëjëf Mbour. yal na yàlla guddal sa fan. amiin amiin amiin li ngeen ma defal da ngeen maa siggil. barke yonent bi. Mhm. Mhm. ah Mbour. na nga fexe ba bàkk yi nga bàkk nii na ko téye maîtriser ko. du ko fàtte. ah. bu ko fàtte de. bu ko fàtte benn yoon te sa xel dal te lépp lu gis ci àdduna dafa am lu koy waral. daa am lu waral ko ragal la. kii moom la waaw booy yow. Ah, du ko ah, ah, jërëjëf moom moo fi dàq moo fi dàq ndaayaan léegi. ndaayaan waaw. du ko dàq ji la ko. dañoo tiit. ku ne dinañ ko fi yebal ku ne koo xalaat waaye bi léegi dinañ xam ne koo përi bokk mënoo koo jëw bu ko jàppee mu xam ndaayaan day mandi du dof doom du bari di ko léegi mënul koor bi léegi mënul ñu ndéewum ndaayaan léegi yéen kontaan naa euh, comme que comme que comme que seen nijaay saa bu ñu leen soxlawee rek incha allah leen woo. jërëjëf bu bu ne am ñaar répétition wala ñett. waaw waaw waaw waaw. yow moom Mboub. kontaan naa ci yow de njëwal gi bëgg nañ ci yow de. yàlla yàlla la jàmm. <laughs> <laughs> ay Babacar ay Babacar dëgg dëgg mooy Babacar. waaye gis nga nag. Mhm. junni yii nii. waaw ah. chaque deux jours wala yooyu junni yi ko waxtaanee nag xaalis amu fa. Ah, waaw amu fa amu solo. ah yooyu jar nañ ko de. ah daa bëgg mu koy wàññi. waaw. ah ci keesu ngéwél gi laa koy jëlee de. keesu ngéwél ga du sama alal de. kon dama lay ñuus de waxoon naa. ko Gajaga Mor Gajaga. Mhm. Aliou Gajaga. Mhm. Fatou Gajaga. ma Fatou Gadiaga moomu ngay wax ku ñuy wax soxna Fatou wañ mooy ndeyam mu nga dëkk ci dëkk buñ naan Ndugubeen Ndugubeen takko Ndugubeen takko jëw ñëwal Aliou Gadiaga waaw dëkk ca Ndugubeen mhm. Saliou takko Khoudia takko lay Gadiaga saw ñooñu Saliou Gadiaga Khoudia Gadiaga ñoom ñett lañu ñoom ñett ñooñu ku ñuy wax Moustapha Diakhaté mooy seen waajur wu góor takkoog malaado ak Faatumata kuma yar jee lumbal jéego lëmbal waaw takkoog malaado ak Faatumata kumba yël ak joola lëmbal boo ko déggee takko mooy seen maam moo bokk ak wax léegi ndey ak baay jaariyatu saw waaw jaariyatu law bela ah ñooñu ñett. Kumba bii gay. Lawbe la Lawbe la waaw. Alpha. Lawbe la la <laughs> dëgg la Lawbe pire saa yi. waaw yaakaar naa nii baax na nii def nii baax na nii baax na ci émission bi. nii baax na ci émission bi buñ ko duyoo noonu dina baax. gis nga gars dañuy fen rek. bari na mbooloo la ñuy wax lépp ay du dëgg. waaw seen émission yu bari nii la ñu. ñett ñoo ci jël. kenn kaa ci wax dëgg li ci des yëpp da des ñu tiim nit di wax ba mu yàgg ñuy. di ko orienté ay maam yoo xam ni kenn xamul xamuñu seen i ay fenn yu rey la ñuy fen léegi léegi nag nii baax na. Ah. guerre bi moom foog nu trouver ak ñoom maanaam ci stratégie boo xam ni dañ ciy tegu daal. waaw ah. waaw surtout ci wole wole boobu noonu. Ah. dañ faa le amuñu kenn ku ñu fa teewal. moo tax wet gi émission bi foog nu defee ko nii. émission bi daal bu commencé yow mbaar rek waaw bu commencé. waaw dama lay mbaaral waaw kese su may mbaar di mbëpp. nga nga ngay dugg ci actualité man may dugg ci law be ji. di dugg ka génn kii mooy seen maam. waaw kii moo jur kee. waaw kee kee ñoo bokk dafa yomb. ah. dëgg la xam nga gars yi bu nu mënoon ba man waaw. dem fan war a demee. foofa du nan dem fële écré waxi. kan. géwél yi <laughs> ñoom rek buñ ci defoon écré ni lan Poutine <laughs> Poutine du lëf la de kooka du du du du n'importe qui la de. mbaa du day sa put. mooy yow put gi la naan tip aka neexoon tey. nu ni nu favorisé law géwél gi nii. Eh. ñu ne woon lawbe gi attaqué leen. kii ah ah, ah lawbe nag moom jombut écran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 xana xamoo eh, écran dañ fay eh, ki jëlee ay conteneur di ñew ah kay ah, jembe gi waw bata yu ko yeb écran lay traverser deug la soga dem te dekk bañ ko eh, bañ ko jëlee. Moodu saw mi daan mi mi daan mi daan mi daan mi daan jël dem fi ci Ecotaf gi daan chargé conteneur yi di yóbbu penseur yi écran. ah Moodu saw waw Ecotaf gi fofu ci pàkk bi bo mel lu jëm syndicat. xamna ko waw Modou saw kay xam naa ko. Paka Lawbe moo fa daan gaare conteneur bu mag bi at mu jot. conteneur dafay law Lawbe yettal koy penseur mu def ci. Hmm. Lawbe yàgg naa am jom. mu yow jam itam. xam nga wax ji lañ mënut. ñoom wax dëgg yàlla ñu mënewuñu ay wax. déedéet waaye nag ñoom ñi mën a wax. lu ne ñu ne seen maama ko def sunu maama def lii sunu maama def laa. sunu maama def laa nañ ca dem ba mu saf. danañ leen ci fekk si laa la wax. ba mu saf saf danañ leen ci fekk si dudu. dina nga dem demul. mënoon nga taxaw. di nga xam ne réew mi géwalee ko moom mu waay eh, mu waay eh. doo maanaam yow. Eh. jógal yow loo jotee ci yow. jógal. xam nga lii relation de réewante la bàyyi bàyyi relation de réewante la rek. jaajëf maa mbaa gaañu la. Ah. mbaa gaañuñu la. si xool bi dala gaañ. li mu fan lala la commencé dak yow kii dalaa man man néewal doole néewal go ah, doole gu tax ngay ngay nangi nangi nii ñu ne ndaayaa na ngay daw loolu war nga koo def yow déedéet ngoneel bul attee noonu da ngaa xam lu mu yor ba tax kii di daw xam nga ni ab yu la ab yu la lu ngeen jote ngan naa dong lay yor lu ngeen jote waaw euh, ak gaz waaw waayo déwle waaw gaye nga ne ay sawal mu ne ay lan ay sawal sabar lañu teg ma ñëw di rek nga jaasi faago dak ñoo iya. nga ni lan boo fole la ma tay ma jam la tay ma ray la ma soxol mu wacc dukkure ab woyu la bari la ah ay paaka di léegi gé ay paaka ay paaka da nga dukkure bandi la nga buum gi muy yor di pendre nit ñi ab bandila, nga ne sabar di répété ah ngooneel sa waay way dem na geej way dama ni dem na geej boobu ba nagane nag defuñu benn benn defuñu defuñu teguñu yenn jéego ñi ngi toog rek na tek di leen bàyyi ñuy dem ak dikk di sàjji sabar boobu ba léegi nu ciy dégg ne nemm nemm gi ñu ne nemm nag ëpp na noonu ah xeex bi fi ne nii jeena jógal dem sangu ji dama leew seen wax bi jaaxu naa ko daw rasa xel tël jël rasa wax sama sama wax jël jël tas sa mbokk jël. yow yàgg nga fa de lii lépp xaar nga ko fa. nga ne taw rasaxin. jël jël tas sa mbokk jël tas sama sa maama mbokk jël ngeen jël. waaw beneen góor bi mu jox fecc. dugub la xamul dara. loolu compliqué na de. taw ra cër gi moom dafa compliqué waaye de. jër jër gi. fu mu jël fu mu jëlee jër jër gi. jër jër gi ñoo ko du yow bàkk bàkk ba bërki démb loolu nga loolu nga wax gane yi. cas ah. toj. boobu mu déedéet. déedéet ah non. dafa ndànk bu ma nee cas njaq li mm-hmm. nga ne toj ko. Mm-hmm. ma ne xanaa fu ñuy roote. Mm-hmm. xanaa àbb kook dëngal ko ci. mu naan pàcc. loolu dégg nga benn booy wax ko benn géwél ak yooyu. waaye ñoom ñu ko lu fi mag ñi bàyyi woon la rek yow daal foo déggatee man léegi ñeen répété il est temps ñu def dara. waaw jër-jër ji du du woon sa sa. jër-jër ji nañ ko jël. am na leneen lu nekk sama comme yaa ko créé kay nan nan wax ak ñoom ne leen bàyyi leen jër-jër ji ba léegi. que nous ñu daal de faire répétition